وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 mbokk yi seetaan télévision ma Fatou Bichri ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziyaara ci émission bi nga xam ne moom lañ tuddee leeral suñu diine sëñ Mouhamed ñu ngi lay nuyu di nuyu sëriñ Kosso Seye nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoom lañu àndal ak suñu euh, taalibe yi nga xam ne ñoom la ñu àndal fas yéene àndal ñoom ci émission bi. macha allah soxna Jaminatu kàddu yi am na solo kon bu ko defee ñaar naan jàll ci sëriñ Kosso Seye incha allah bi mooy mu présenté wu. aouzu billah bismillah inna walillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam te fas yéene ànd ak yéen ci émission bu am solo bi te mooy leeral sunu diine fas yéene ànd ak suñu ndongo yu tedd yi ginnaaw bu ñu nuyoo sëñ Mouhamed ak soxna Jamilatu fas yéene ànd ak sunu ndongo yu tedd yi incha allahu taala ci asala yu am solo yi incha allah. waaw ginnaaw loolu nag xam naa ñuy nuyu borom kër gi Serigne Madiama Mbaye euh, borom sant wu naqar bi bu ko defee nag ñu soo ko jàll ci li nga xam ne moo di question yi waaye balaa loolu ñu présenté suñu candidat yi. Euh, ki ci jiitu di Serigne Gora Seck moom mi ngi jógee Babou Salaam euh, keneen ki di Serigne Babacar Sarr moom it jógee fi nga xam ne mooy di lycée franco arabe bu Kër ma ak ki nga xam ne moo di Souleymane Diallo moom jógee fi nga xam ne moo di euh, Daara Mouhamad Rasulullah ak ki nga xam ne moo di Serigne Abdoul Aziz Ndiaye moom it jógee fi nga xam ne moo di Daara Umul Quran kon su ko defee rek xam naa dañuy ñëw ci laaj yi njëkkee ci alquran. bu mm-hmm. ko defee ñu ci sëñ Gora Seck sëñ Gora Seck. ñu bëggoon nga indil ñu benn aaya boo xamante ni dafay wax ci weeru koor aaya boo ci teewlu léegi ngeen indi ko. asalaamaaleykum. يا أيها الذين bi am na solo saxiix kon bu ko defee ñu daal di jàll ci sëriñ Babacar Sarr moom tamit. sëñ Babacar Sa yoo tamit boo teewloo benn aaya tamit bi wax ci wàllu weeru koor boo ko mënee indil bismillah mhm bisimilah. waaw mel ni mbokk mi daa xaw a sant ñu jàll ci Serigne Souleymane Diallo. Serigne Souleymane Diallo yow tamit boo mën a indi buy wax ci wàllu weeru koor ci alxuraan bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatulah. maa ngi nuyu bu baax di leen ziar. waaw loolu mooy شهر رمضان الذي kon su ko defee tamit ñu daal jàll ci Serigne Abdoul Aziz ba léegi Serigne Abdoul Aziz yow tamit bu fekkee am na benn aaya teelu ci buy wax ci weeru koor mën ko mën a indi eh, tafaddal السلام السلام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان waaw dafa mel ni aaya boobu la mbokk mi indi sànq boo amee beneen aaya. beneen aaya ñëw na si di wax si nga xam ne wa ala alladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. macha allah waaw. firi ko. di wax si ñoo xam ne dem nañ bi nga xam ne mënuñoo woor ñu indi fidya macha eh, maanaam ñi nga xam ni dama mënatoo woor wala ñu am ngànt ñu joxee daal di leel miskin tabarakallah mhm. kon loolu mooy alquran bi boo ko defee ñaari gàll ci li nga xam ne moo di xadis eh, Serigne Gor Seck boo nu mënee indi benn xadis boo xam te ni day wax ci wàllu koor maanaam ci lu jëm ci wàllum xëdd boo ci teeloo benn xadis bi wax ci wàllu xëdd xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tasaxaru inna fi suxuuri baraka mhm. macha allah tontu bi leen na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na da leen xëdd ndax xëdd barke mi ngi ci kon ñu dem ci Serigne Babacar Sarr Serigne Babacar Sarr ci weeru koor te xadis ban xadis ngeen mën a indi bi wax ci wàllu julli naafila xam ci xiyaamu lay léegi lu mañ doon rek boo ci mën xadis muy wax ci naafila wala muy wax ci xiyaam yi ci weer koor alquran wa min al-layli fatahajjad bihi naafilatan lak xadis xadis xadis Mm-hmm. léegi ñu ngi soxla woon man qaama ramadaana man qaama ramadaana imaanan wa ihtisaaban gufira lahu maa taqaddama min zanbihi wa maa ta'axxar kon su ko defee ñu jàll ci Serigne Souleymane Diallo Serigne Souleymane Diallo yow tamit soo nu mënee indil benn xadis boo xamante ni day wax ci weeru koor ci dog maanaam ci ban heure maanaam dog ban moo gën ci dog xadis bu ciy wax. alhamdulilah. waaw man xadis euh, bi may wax mooy yonent bi sallallahu alayhi daa wax benn xadis euh, nee na laa ummati bi xayrin ma ma ajjalul fitr wa axiru as-suhur maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sama xeet duñu mës dañ ci ci yiw fekk ñu ngi yéex li nga xamante ne moom mooy euh, xëdd ñi daal teel a ndog. Oh. macha allah xadis euh, bi leer na mooy kon daal yéex xëdd daal di teel a mooy lii nga xam ne mooy sunna su ko defee kon ñu jàll ci ki nga xam ne moo di euh, Abdoul Aziz Ndiaye Abdoul Aziz Ndiaye euh, ku ne xam na ni yéene dafa nekk benn ponk bu am solo ci islaam ndax mën nga doon indil benn xadis bi wax ci wàllu yéene. xadis <coughs> bi wax ci wàllu yéene. si jëmee ibaadaat wala si ah, si koor bi bu wax si wàllu yéene. wax ci wàll yéene rek généralement. xadis sallallahu alayhi wa sallam wax innama al bi niyaat wa innama li imri imma nawa ah, mu ni yëf yëpp rek ma ngi aju si yéene ne bépp ascam rek ah, nekk na la mu yéene lay am. Oh, macha allah kon daal kon koor tamit kenn mënu koo def te yéene kon su ko defee ñu daal jàll ci li xam ne moo di fiq Serigne Gora Seck. Euh, benn mbayeen bu woor ba ay heure trois heures rek biir bi xaw a xoosu mu daal di gis benn kopp ndox rek dal di naan fàtte nañ daa wóor kooku la mooy atteem waaw kooku li atte mooy mu continuer kooram mu continuer kooram maanaam ndax dafa juum daal li nga wax neex na mbayeen yi kon su ko defee ñu jàll saxee ñu jàll ci Serigne Babacar Sarr kon su ko defee njaay seen sëñ Babacar Sarr sëñ Babacar euh, jigéen ji nga xam ni woor na ba ay boori quatre euh, li nga xam ne mooy faral di jigéen daal ko te mooy xayb ndax kooku day continuer koro wala koy eh, dog incha allah fekkee war na ba ngoon mu dagg ko day dagg koor gi incha allah macha allah ndax ku amee xayb kooku teggi nañ ko koor koy wàcc ba keroog muy muy muy denc moom mu soo fay. su ko defee ñu daal di jàll ci ki nga xam ne moo di Souleymane Diallo Serigne Souleymane euh, kii ab julli la lekk ci tukki boo xam te ni tukki bu neex yàlla la léegi tukki bi weesu na lu ëpp maanaam 48 kilomètres ndax moom dañ koy wax force day woor wala bu ko neexee bañ a woor. waaw al boobu euh, maanaam dafa bokk ci. ci aaya ba nga xamante ne yàlla andi na ko maanaam képp ki nga xamante ne daane fa man kaana minkum maridan aw ala safarin képp ku nekk si nga xamante ne dafa feebar wala mu nekk ci tukki boo xamante ne tukki bu neex yàlla la bu fekkee distance bi euh, mat na am na tool sori na soriwaay boo xamante ne bu bu su wooree day sonn loolu noonu may na ko mu daal di euh, dog ba benn incha allah mu daal di fay kooram. macha allah euh, ñu dem ci Serigne Abdoul Aziz Ndiaye. sëriñ Abdou léegi ki nga xam ne euh, dafa feebar ci weeru koor ni bu wooree mën koo gàllankoor kooku luy xam ni feebar bi man na kaa indil euh, coono baax mën na kaa indil xalaat euh, wala mu indil ko itikaaf mën na mën naa bàyyi Alxuraan ñëw na fa man kaana minkum maridan aw ala safar marad boobu mooy dafa feebar kon fa iddatu min day bàyyi su koor gi jeexee mu daal di woor. mu daal di woor macha allah kon yaakaar naa loolu lañ jot am ci ay question ci premier tour bi xam naa damay bàyyi sama gars yi bu ko defee ñaari ñëw ci cori cori euh, question yi ñu xam ku ci nekk ñaata point am ak kan mooy am xaarlu ñu dem ci deuxième tour bi incha allah rabbi soxna Jabi فمحونا آيات الليل فابتغوا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل mbokk yi nga xam ne ci émission leeral suñu diine macha allah ñu ngi jaajëfal bu baax a baax góor a sekk moom am na fukki poñ ak benn Babacar Sarr am na ñetti poñ Souleymane Diallo am na itam fukki poñ ak benn Serigne Abdou Aziz Ndiaye am na fukki poñ ak benn kon mu mel ni kii ñoom ñett dañoo tolloo ay ay ay points mu mel ni que kon Babacar Sarr moom la ñuy jaajëfal bu baax a baax euh, mu ñëw rek ñu jox ko neexalam incha allahu rabbi su ko defee Euh, Serigne Gora Seck ak Souleymane Diallo Serigne Abdou Aziz Sy Ndiaye ñu daal di wéyal liggéey bi ba tey ci seen émission leeral suñu diine. incha allah incha allah. waaw bu baax moom sëñ Babacar Sall mi naa ñu ay champion maa koor gee ko jàpp <laughs> moom xaafisul Quran allah. Mm-hmm. kon daal di jàll ci deuxième tour yi. Mm-hmm. Euh, deuxième tour yi incha allah rabbi quran xadis ak siira la kon ba tey ñu ngi ñëwaat ci alquran waaw alhamdulilah kon su ko defee ñu ngi deuxième tour euh, fas yéene ci ànd ak Serigne Gora Seck ak Serigne Souleymane Diallo ak Abdou Aziz Ndiaye kon bu ko defee ñu ñëw ci ba tey question alquran yi euh, Serigne Gora Seck yow ñu lay laaj benn aaya buy wax ci wàllum julli wala ko teeloo nga indi ko ci alquran aaya bi wax ci wàllu julli. والصلاة والسلام ah, Alxuraan julli nekk na si nit si nit ki loo xamante ni nekk ah, nekk na salaata ala mu'minina kitaabu mawquuta si nit ki loo xamante ni dañ farataas si moom daal. utal ko ay waxtu daal. dañ ko utal ay waxtu yoo xamante ne sa waxtu bu jot julli bu nekk waxtoom. macha allah. ayca jërëjëf kon ñu daal di jàll ci ki nga xam ne moo di sëriñ Souleymane Diallo sëriñ Souleymane Diallo yow tamit boo nu mënee indil aaya boo xamante ni day wax ci naafila ci alquran aaya boo xamante ni muy wax ci wàllu naafila. Ah, alhamdulilah euh, baana ausbillahi min sheytaan irajim waaw maanaam yàlla mi ngi wax mi ngi wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min al-layli fatahajjad bihi naafilatan laka asaa an yab'asaka rabbuka maqaaman mahmuuda maanaam tax yéen e, julli guddi nga xamante ne maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dakaa ne si guddi gi pour nga def ay naafila nga def ay taraaw yi nga xamante ne loolu noonu boo ko defee e, maanaam di nga am place bi nga xamante ne bu bu tel bu toll kii si si yàlla bu kawe daal bu kawe ci yàlla. ci yàlla subhanahu hmm. macha allah loolu am na solo. Euh, ñu daal ci Serigne Abdoul Aziz Ndiaye Serigne Abdoul Aziz Ndiaye ku ne xam ne nu weeru koor di ci saraxee dafa baax ndax mën nga doon indi aaya bi wax ci wàllu saraxe ci alquran. aaya bi wax ci wàllu saraxe. Hmm. alquran ma ngi wax ni. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ما شاء الله naan yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla depase leen seen alal si lu njëkk bis boo xam ne foofu amul jaay amul jënd amul dara. macha allah hmm. allah kon su ko defee ñu ñëw ci nga xam ne moo di xadis. Hmm. aywa kon su ko defee ñu daal di ñëw ci li nga xam ne moo di xadis ñëw ci Serigne Gora Seck yow tamit ndax teelu nga benn xadis boo xam day wax ci wàllu saraxe ci xadis yéen du saa salaam. kon Seck dafa xaw bu ko defee kon ñu jàll ci Serigne Souleymane moom tamit ba léegi même question bi dañ koy laaj euh, Serigne Souleymane Diallo bu fekkee am nga xadis boo teelu buy wax ci wàllu saraxe soo ko mënee indil. waaw euh, man wax mooy indi saa bi muy wax ne euh, de tasaddaqu fa inna maanaam dee leen sarax ndaxte sarax yi day day day far ay bàkkaar. Hmm. macha allah loolu am na solo. ay ca ba léegi rek ñu ñëw ci saraxe ba léegi ndax euh, ci weeru koor la nekk te ku ni weeru koor ni saraxe hmm. euh, sëriñ Abdoul Aziz Diallo bu fekkee teelu nga benn xadis buy wax ci saraxe nga bon ko mënee indi. yonent bi salallaahu alayhi wax ni nga xam ni moom maa ngi maa ngi wax si ñi nga xam ne ñoom lañ war a ñeete mooy ñi nga xam ni dañuy am indahu maal yunfiqu am nañ bo kii alal ba pare ñu dépassé ko sabilillah ak ñi nga xam ne moo ko na alxuraan ba nga xam ni dañ koy dépa dañuy jaamu borom bi ñu ñaar ñooñu ñooy ñi ñi war a ñeete. Euh, laa xasada illa fii. is na tey nii macha allah yow xadis bi ñëwul waaye maanaa bi ñëw na euh, kon su ko defee ñu daal di euh, jàll ci siira siira Serigne Gora Seck bu ma doon laaj maanaam ban at nan farataal li nga xam ne moo di weeru koor ci jullit yi ban at nga may wax ci atum gàddaay ban at lan farataal li nga xam ne moo di weeru koor. farataal weeru koor waaw. si alxuraan wala. waaw siira la taarix la rek waaw ah. maanaam at bi nga xam ne ci lañ farataale weeru koor. Mhm. mu nekk lu far loo xam ne farata la ci jullit ñi. waaw ah, ñu jàll ci Serigne Souleymane mi xam ne ci lañ farataale li nga xam ne moo di weeru ci jullit ñi. boo ko delloo nga indil ko. su ma juum si atum ñaareel mi. ah ñaareel mi waaw atum solo kon weeru ko ñu ngi ko farataal ci bisub altine. ci atum ñaareel ma ci. weeru koor ci atum njuriñ mi. kon ñu dem ci Serigne Abdoul Aziz eh, Ndiaye Abdoul Aziz Ndiaye eh, li nga xam ne moo di weeru koor ñu ngi ko farataal ci atum ñaareel ma. boobu mi ngi fekk yonent bi Màkka wala mi ngi ko fekk Madina. ñoo ngi koor eh, mi ngi ko fekk Madina. ñoo ngi ko fekk Màkka. Hmm? ah aywa ngi ko fekk Màkka. Uh-huh. kon bu ko defee loolu lañ fi jot am ci ay euh, tontu euh, yonent bi bi ñu farataal euh, koor ci moom ni ñu ko fekk Madina ndax boobu lay gàddaay ba am fa ñaari at. ñaari macha allah kon su ko defee ñu bàyyi rek sama sama kii zi zi ziir yi ñuy xoolal ma bi nga xam ne moo fi jot a ci ay not incha allah rabbi. مبصرة لتبتغوا فضلا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax mu mel ni ki ba tey ñu ngi woon ci seen deuxième tour ki nga xam ne moom moo di Serigne Gora am na ñeenti poñ euh, Serigne Souleymane itam am na fukki poñ ak benn Serigne Abdou Aziz Sy Ndiaye am juróom-ñaari poñ waaye xam naa ne incha allah bi dañuy jaajëfal bu baax a baax Serigne Gora euh, Gora Seck moom it euh, jàmbaar la ndax macha allah dem na ba deuxième tour. xam naa dañuy ñëw rek ñu daal di koy jox moom tamit euh, neexalam su ko defee ñu bàyyi euh, sëñ Souleymane ak sëriñ Abdoul Aziz Sy Ndiaye ñu daal di wéyal ba tey euh, li nga xam ne moom moo di leeral suñu diine wa kulla insanin alzamnaahu taa'irahu fi unuqihi wa kulla alhamdulilah rabbil alamin euh, kon ñuy jaajëfal Serigne Gora Seck moomu euh, génn sànq moom it jàmbaar la xam naa dugay euh, ceeteen bi boo commencé génn. kon su ko defee ñu daal ñëw suñu final fas yéene cee ànd ak ki xam ne moo di Serigne Souleymane Diallo ak Abdou Aziz Ndiaye ñu fas yéene ànd ñoom ci final bi. kon ñu dem ci ki nga xam ne moo di Serigne Souleymane Diallo Serigne Souleymane Diallo ba tey ci al alquran ñu sàkk ci yow ngay nanu benn aaya boo xamante ni day wax ci wàllu jirim aaya bi wax ci wàllu jirim wala ku ma ko teeloo ngay dund ci waaw rajiim euh, yàlla suñu amwaalahum wala tatabaddalu xabiisa bit wala taakulu amwaalakum ila amwaalihim innahu kaana huban kabira Hmm. yàlla suñu borom dafay wax si suratu nisa maanaam euh, jërëm yi jox leen leen seen seen seen gëdd jox leen leen seen xaalis maanaam seen xaalis bi nga xamante ne seen waajur moom lañ fi bàyyi maanaam dañ leen ko jox ñu daal di si dund ñu daal di see lekk ndaxte loolu noonu bi ngeen ko defee bi ngeen ko lekkee lool noonu dafay nekk bàkkaar bu mag si kanam yàlla suñu borom. macha allah loolu am solo euh, jazakallahu xeyran sëñ Souleymane Diallo ay te sëñ Abdou tamit.

li ma sadaxaa li ma sadaxaat lil foqara waaw boo boo teeloo beneen baat boo xam baatu jirim aaya bi jirim day wax ci jirim direct aaya comme wala xadis aaya buy wax ci jirim maanaam boo xam ne ñëw ci jirim moo wax ni lii attey jirim mu wax ci xam naa fi alxuraan fi yàlla subhaanahu wa di wax wala takkulu am wàllu bi tey bi tey wala takk mbokk yi ne li teelale woon ci waxtaan bi jeex na mm-hmm. eh, macha allah eh, kon ñu daal di jàll ci li nga xam ne moo di fiqh ayca bu ñu demee ci fekk Serigne Souleymane Diallo yooyu eh, ba tey ñu lay laaj ki nga xam ni dafa euh, ëmb jigéen ji nekk en état euh, ndax moom bu fekkee ëmbam bi euh, terewu ko woor léegi moom foofu damay atteem. waaw dafa fe bokk si nga xamante ne si atte fekk dafa nekk xamante ne dañ kaa dañ kaa naa mu baax maanaam dañ ko kaa permettre bu fekkee ëmbam mënu mën moom pour mën may na ko pour mu woor moom mën nañ ko bàyyi moom mu continuer di woor mais bu fekkee nag dafay jural ay ay lor lor bu boobaa dañ koy tere mu woor. macha allah bu fekkee ëmbam la koy jural lor wala muy jural lor doom mën naa bañ a woor kon su ko defee ñu ñëw ci Serigne Abdoul Aziz moom tamit Serigne Abdoul Aziz. màggat goo a comme ni ko mbokki waxee xubidaas ndax moom tamit koor day nekk lu ci moom wala déet déedéet nañ ko ko mooy aaya bi nu waxoon sànq wa alladina yutookoona wa fil yatama masakin allah kon ki nga xam ne moom it mënu ko màggat ba attundul koor bi ko ñu koy teggil weeru koor muy joxe ki nga xam ne moo di leer mm. kon bu ko dem ci saxaafa culture générale euh, Serigne Souleymane Diallo euh, culture générale fan yii nii Sénégal amoon na ndam lu rëy ci alquran ci mbokk moom nga xam ni moo jëloon li nga xam ne moo di concours national boobu ci alquran mbokk mi nu mu tudd ak ban daara lay jàngee. waaw ah, alhamdulilah ah, kooku mu ngi tudd Mouhamed Moustapha Diallo mu ngi jàng mu jàngee ci daarul iman bu nekk si Kambaaw. macha allah euh, sëñ Abdou Aziz. Ah. concours national boobu Mouhamed euh, Moustapha Diallo gañe woon. Mhm. maanaam concours bi ban dëkk la amee woon. mu ngi amoon dëkk bi ñuy wax Malaisie. Malaisie macha allah alhamdulilah kon yaakaar naa loolu moo fi jotoon ci ay question ci li jëm suñu ñaari finalistes yi kon du ma def lu bàyyi rek sama mbokk yi ñoom ñu naan ñëw wax kan mooy ki moo jël réew gàddu gi incha allah. jërëngeen jëf mbokk yi ñu ngi eh, sant bu baax a baax ñi àndoon ak ñun ci leeral suñu diine ndax mu mel ni ki ñu ngi woon ci li nga xam ne moom moo mujj mu di ñaar ñi nga xam ne mun nañu wax na ci finaliste lañu nekkoon mu di Souleymane eh, Diallo ak Abdou Aziz Ndiaye eh, macha allah Abdou Aziz am na juróom poñ ki nga xam ne moom moo di Souleymane Diallo nag macha allah moom am na fukki poñ kon mu mel ni kii Souleymane Diallo mun nañoo wax ne tey suñu premier numéro ci émission bi nga xam ne moo di leeral suñu diine moom moo nekk ci bopp bi moom moo jël premier incha allahu bi day dem final moom Souleymane dañ koy jox neexalam jox Abdoul Aziz si neexalam waaye Souleymane day dellu si waat ci li nga xam ne moom moo di final bi incha allahu bi xam naa fii kii jëm jamono incha allah kon daal noonu la demee sëñ Mohamed xam naa sëñ Koso incha allah moom mi nga xam ne moo doon jël note bi ñu bàyyi ko ba xam mu it moo macha allah kon sëñ Koso xam naa dañuy wax mu jox jox sama gars yi seen kado yi. xam naa moom euh, am na am jàngat bu du ñàkk ab jàngat bu mu def ci wàllu question yi. ak tontu yi fa tabarakallah ñu bàyyi ko mu am kàddu yi ñu woo seen mbokk yi ñëw jël seen kado incha allah. jërë ngeen jëf mbokk yi ci teelu bu ngeen a teewlu seen télévision Mafatul Bichri ci émission bu am solo bi di leeral suñu diine. Euh, muy lu am solo xam ngeen ni ni ñu ko waxee rek maanaam lii lu am solo la ci lislaam waaye ñu xam ne sartool euh, te nañ ceeg waqimul wasna bil xist bu baax a baax mooy kenn ku nekk xañuñu ko lenn lu mu war a am waaye kenn ku nekk rek lam am moom lañ ko jox xam ngeen ni def nañ ko diirum ñetti yoon euh, niñ ko xamee ñoom ñeent ñu séq ko dégg nga noonu ko soxna si tegtale te wax dëgg yàlla muy ay laaj yu am solo yoo xam ni benn bi ci alquranul karim la jëm bi ci des ci xaddis la jëm bi ci des ci fiq la jëm yàlla dogal ñoom ñett candidat yépp dem bi ñëwee ci ñaareelu candidat bet gis nga noonu ñu laaj leen alquranul karim ak xaddis ak siira ñoom ñu tontu ko yàlla dogal ñaar ñi dem mu des kenn ki dem mu des ñaar ñi ñaar ñi nag muy sëriñ Souleymane Diallo ak sëriñ Abdul Aziz Ndiaye ñoom ñaar ñoo doon dem finaal yàlla dogal ñu leen doon laaj alxuraanu karim ak fiq ak saqaafa muy culture générale ñoom it wax dëgg yàlla ñu tontu ay laaj yu am solo ba yàlla dogal Serigne Souleymane Diallo moo mujj jël raw gàddu gi ci fukki point waaye ñoom ñëpp ay champion lañ boo gisee ni ñu ni ñu ni ñu ni nga xamante noonu lañ tontoo mm-hmm. da gis ne ay champion lañ mm-hmm. loolu nag dinañu may ñu ñu gën a soññ ñi nga xamante ne ñooy seetaan seen émission bii di leeral seen diine mm-hmm. ñu gën a farlu ci ci njàng mi ñaareel bet mooy boo xoolee ci biir li ma ci gën a seetlu mooy da nga gis ni kon euh, dongo bi warul yam rek ci jàng alxuraan kese waaye war naa góor góorgóorlu ci fiq góorgóorlu ci siira góorgóorlu ci culture générale mhm. te xam yooyu yëpp maanaam du doon ko gàtteelu rek yam ci àlluwa ji rek di jàng alxuraan rek yam ci mhm. waaye yooyu yëpp da cee war a gën a def ay gëstu insha allah taala mhm. fii mooy daaray Mafatihul Bichri Euh, yàlla dogal na émission bi day continuer incha allahu taala ñu koy amal ak yéen kon ñu ngi leen di jox dig daje incha allah ba beneen jamono rek incha allah. macha allah loolu am na solo xam naa ne bàyyi Jamilatu rek mu nuyu sponsorisé euh, sponsor mhm. yi. nga xam ne ñoo ko jàppale ci kii bi macha allah. Mhm. waaw di nuyoo ko ziar bu baax a baax ki nga xam ne moom moo di Serigne. Euh, tonton El Hadj euh, Ndaw ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom it jàppale nañu baax a baax ci gañaay ndax gis ngeen euh, pañe bu mag bi moom la jox premier bi yeneen ñi ci topp yépp yi pañe yi macha allah te itam kaamil yi itam ñu jaajëfal bu baax a baax euh, kii nga xam ne moom moo di daara Albani mu ñoom ñoo ñu may kaamil yi ñu ngi leen di jaajëfal docteur Mouhamed Kane Euh, DM Express tamit di Serigne Mountakha euh, mbay moom tamit ànd na ak ñun ci liggéey bi incha allahu rabbi noonu lañ fas yéene wéyal di xaar képp koo xam ne rek bëgg nga cee jàpp mun nañoo joxe suñu numéro direct 77 la 794 42 30 képp koo xam ne bëgg nga ci am loo ci barkeelu ndax mu mel ni ki suñu euh, ñi nga xam ne ñoo doon euh, tontu laaj yi bëgg nañoo am yeneen gañaa yu gën a kawe incha allah rabbi ndax noonu lañ fas yéenee wéyal li nga xam ne moom moo di émission leeral suñu diine di euh, jaajëfal waa leeral suñu diine yépp ñoom it ñi nga xam ne tur bi ñoom lañ ko duppee mu di ñoom Serigne Souhaïbou ñoom ñu ñoom ñoom tamit ñu ngi leen di jaajëfal bu baax baax képp koo xam ne bëgg nga cee jàpp daal mën ngaa woote ci sama numéro 77 la 794 40 30 incha allah euh, 77 la 794 40 30 incha allah ndax dañoo fas yéene def final bu mag incha mhm. allahu rabbi ak télévision ma faatihul bisir kon ñu ngi sant ñëpp di sant itam ñi ñu àndaloon ci wàllu liggéey bi mu di caméraman yëpp ñu ngi leen di sant bu baax di leen macha allah kon bu ko defee ci noonu la ñuy woowee ki nga xam ne moo di Serigne Abdoul Aziz mu ñëw jël li nga xam ne moo di kadoom. jaajëfal bu baax a baax a baax ñoom ñu ngi jógee fu seen wax dëgg yàlla ñëw pour teewe si émission bi. incha allah ko defee ñu woo nga xam ne moo di suñu suñu champion bi di sëñ Souleymane Diallo. mooy mu ñëw jël nga xam ne moo di kaloom. kay sëñ Souleymane bisimilah dafa baax. Mhm. dinañ leen jox tamit paas incha allah. am na solo daal comme ni ko jëndee waxee sànq rek ñi nga xam ne ñooy saraan émission bi. Mhm. su ma la jàppee rek euh, bisimilah tafor daal. Mhm. ndax liggéeyu islaam la liggéeyu diine la ndax euh, mafaatixul bi si looloo tax mu tijjeeku mhm. ngir jàppale jullit ñi ak tamit leeral li nga xam ne moo diine ji incha allah rabbi kon noonu lañuy defee di gërëm bi nga xam ne moo di Serigne Koso mhm. euh, Sey mhm. ak soxna Mariam Jaxate euh, ki ngeen àndaloon ci émission bi di seen sorte Makhwan bi bu ko defee ñuy gërëm ñi nga xam ñoo nekkoon ci wàllu mhm. euh, xarale yi mhm. ñoom nekk cameraman yeeg ñi ba nekk ci wàllu son bi Serigne Ndiaga Serigne El Hadj Serigne Malick ak Serigne Malick mhm. ak Serigne Soxna boobu soxna Aminata Aminata ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen jaare baax a baax baax di ñaan yàlla mu defal ñu xéewal ak sutura di leen jox beneen dajee ci beneen numéro insha allah rabbi شقيا وإني خفت خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا